xoolal xoolal bàyyi maire la mën a nax mais ñun jeunes yi dañoo yeewu dañu doon nelaw mais yeewu nañ 94 Walf Sénégal 8 feere ci vidéo bu gàtt rek yaakaar naa li jëm ci élection euh, député yi yaakaar naa coow ak ñi nga xam ne ni daanaka mën naa ni dañ leen a baare ku ci mel ni Bougane gëm sa bopp ak euh, euh, coalition Yewwi Askan Wi ak ñi nga xam ne nii tamit ñooy ñu ànd ak sëriñ bu ñooy ñëpp baare nañ leen jàllagul ba moo waral am na ci ñoo xam ne ñu ngi coow kan Barthélémy Dias mi nga xam ne mi ngi foofu noonu di coow euh, ñi nga xam ne ñooy takk der yi kan xam naa dañ leen di bàyyi ngeen déglu ñu dégloondoo ko ñu xam ne fii la euh, mbir mi toll kan nag ñu ngi leen di siyaar di leen jox seen wàccuwaay kon bàyyi ñu ngeen teewlu bu baax. Non, mais parfait.

comme nuñ leen ko waxee rek ci Fall 92 Walf Sénégal Barthélémy Dias ak takk leer yi xëccoo bi nga xam ne ñu doon nañ ko xëccoo moom lañ leen di tël nii yéen day génn nii ci xëccoo xale bi ci Fall 92 Walf Sénégal Appelez-moi la presse. La presse arrive. Barthélemy. Barthélemy. Barthélemy. benn liste bi ngeen folklore Macky Sall moomu dëkk bi dañuy bokk ci élection yi monsieur le maire monsieur le maire waaw lan ma wax rek attendez que la suma point ni nga ko point nga rek Chef, chef, ils sont invaluables pour les Mais non, tout ça, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Même parce que les hackers, nous voilà, nous ils vont pas. Vous allez à voir la liste de la carte. Parce que c'est pas comme ça que je comporte. Je dois être le maire de la ville. Je veux voir là. Ils sont battus à l'intérieur. On accepte la patte. Là, là, là. Vous inquiétez pas. wax dama ne booy ñëw dama ne ba gars yi ñëw rek dem leen wuti renfort dem leen wuti renfort dama ne ana ndeyu ana ndeyu Monsieur le maire. C'est pour service de liste. Ah, liste sera pas folklore. Monsieur le maire. Ah, sera pas folklore. Non, non, attendez, je lui parle. Je lui parle. Écoutez, écoutez le commissaire. Écoutez le ah, commissaire. Jëlal sa PC rek. Jëlal sa PC Il ne faut nag defe naa ñoo ko déggandoo coow li gis nga ko ba euh, coow li mi ngi wéy rek ci élection député yi nga xam ne ni euh, yaakaar naa ni moom lañ dëgmal mu nekk nag loo xam ne vraiment bari na ci ñoo xam ne gisuñu ci seen bopp te euh, bari na ci ñoo xam ne jàpp nañ ni daal dañ leen a xeex euh, te wax dëgg yàlla euh, dañ leen a jaay doole loolu lañ gis ndax wax dëgg yàlla réew mi moom fii mu toll nii jàmm rek lañ ci bëgg te bëgguñu ci aw ay bëgguñu tamit coow bëgguñu tamit ñi nga xam ni daanaka mën naa ni bu dara amee ñoom ñoo ciy des na ci seen njaboot xam nga loolu nañ ko sóoraal te bàyyi xel xam ni réew mi du réew coow réew mi li mu bëgg mooy réew mu ñu liggéey ko waaw wax dëgg yàlla